salaamaaleykum mbokk yi ñu dellu si waat fii ba tey ci clinique Daaru Laahi bu Alaaji Cerno lay Sow moo mel na ñoo ngi fii nag ci bureau bi defe naa ne ñii ma toogal tey tubaarkàlla defe naa ne miin nañ leen waaye ginnaaw loolu nag dañuy daal nuyu sëriñ bi jox ko wàcc waayam bu baax a baax ndax defe naa ne comme ni ma leen ko waxee woon rek partout dans le monde ñooy ñëw di ko fi seet si defe naa ñi Gàmbi lañ jóge defe naa ne tubaar tubaarkàlla jëkkoon nañ fee ñëw ci soxna si bi mu tollee diggante tubaar tubaarkàlla jinne yi ne kàll doom du am ndax dañuy yàq ëmb bi defe naa ne loolu ñun ñi ñëpp woon nañ ko ba sëriñ bi ne ko tubaar tubaarkàlla loolu waxi neen la doom dina am tubaarkàlla te defe naa ne xale baa ngi fii ci kër gi ànd ak yaayam ak papaam teew si waat fii macha allah mu mel ne nag tey ji ñoom it dañ fi dellu si waatoon tubaarkàlla defaat li nga xamante ne mooy consultation sëriñ bi génn ci génn na ci ñoom nga xamante ne mooy ñeenti euh, fukki ñaar fukki jinne tubaarkàlla vingt jinne yoo xamante ne ci ñoom lañ nekkoon ak neuf dëmm yoo xam ne yëpp sëriñ bi capturé na ko jàpp leen génne leen tubaarkàlla mu mel ne borom këram mi ngi nii toog te defe naa ne nettali ci gémmiñu boroom la dàqee te tungu ne du teew ñuy netaal donc maa ngi lay nuyu Cheikh. waaw ah, ñu la delloo nuyu Matar. ana li ma wax ana loo ma ci mën a indil ci ay firnde. Ah, waaw suma jabar moom dafa amoon ay tuuti jinne leen génne si moom ak naayin doom loolu yëpp ñu ngi ko génne suma kanam. nekkul li nga xamante ne dañ ko dañ ko def fii man maa ngi woon feneen waaye loolu yëpp daal euh, suñ suñ suñ kanam fii laa ko sëriñ bi génne ah, ñë ñëwoon nañ Cambérène ñu def euh, consultation after mu génne yeneen ñu delluwaat Gambie yeneen yënguwaat ñu ñëwaat bu ñëwaatee ñëwoon neen ñëwoon neen fii ñu génne ñeneen ñu delluwaat waaye time bu suma jabar euh, biram bi dafa xal na rëy tuuti daal moo taxoon ñu dellu si buñ dellu see Gàmbi ñu dem ba am doom waaw ah, léegi doom bi daanaka am na ay ñetti weer moo tax ñu ñëwaat pour wonal si ko sëriñ bi mu ñaanal ñu den from dem mu génnewaat ay four to five a ah, ah, jinne fu mu nekk nii tamit waaye nag bala bala balaa loolu yëpp daal moom Eh, jàppal nañu ci kër bi ba suma jabar eh, bu mu amee ëmb bi daal ci yi xalo xaloon nañ ko sonal tuuti ak doom bi yëpp bon gars dañu ne dañuy dañooy ceeñ doom bi ñu dañu yàqu ëmb bi ñi ñi ñi dem nañ daal ba ñu indil kii beneen doom ay liir ñu ne ko jëlal kii moom tam mu bañ waaye loolu yëpp xam naa si si ndimbal sëriñ bi la daal parce que man time boobu kooloon eh, naa kooloon naa sëriñ bi ma ne ko ne ah yu ne ñu ne dañ bugg a dañ bugg a change change change doom bi loolu dañ ko indil beneen doom. dañoo bëgg changer doom bi indil ko beneen doom jël doom. Hmm, waaye loolu yëpp sëriñ bi sëriñ bi mu ne ma ne gars dañuy wax rek waaye duñ si mun dara man dinaa si dinaa si jéem a def lu ma mun daal so loolu yàlla def mu jàppal ñu si ah, bu loolu tam rombee. buñ demee ci hôpital bi mooy suma jabar bu tolluwee si si diggante daal ah, amoon nañ ay cinq jours si hôpital bi parce que ñu ngi ko doon ñu ngi ko doon sonnal essay bi tamit waaye boobu tamit kooloon bi maa ko mën a ma maa ngi si dinaa def ay ñaan def mu ñaanal ñu affaire yi daal mu dem normal sant yàlla bu baax di ko sant moom tamit bu baax a baax ana yow tey jii boo amoon Euh, looy wax ci lu kàddu ju jëm ci sëriñ bi façon fajinam ak ni muy jàppee jinne yi ak ni mu leen di tere def lu bon ana loolu lan lay doon. Ah, loolu kay sant yàlla bu baax parce que moom liggéeyam dafa set parce que la du garab mu ne la demal da ngay mu génnee jinne foofu bon su fekkoon yeneen sëriñ ñi la dañ laa jox garab ñu ñu ne la nga ñibbi kër boo ñibbee nga sangu jinne yi laxat ay juróomi fan wala ay ñaari weer rek jinne yëpp jinne yëpp ñëwaat waaye moom fajinaam bi moom euh, comme tubaab de wax is one si àdduna bi daal foog naa façon façon fajin bu ma def moom man fii rek laa ko gis danga toog ñu génne doomu sa kanam mu wax mu wax lu yàqal mu wax lu la yàqal Eh, jinne tamit noonu dangaa toog mu laa jinne bi jinne bi wax lu mu la yàqal ak lan lan moo tax tam mu dugg ci yow eh, lu mu def yëpp def koy wax loolu jinne yi tamit dañ dañ si dañ si dañ si mën a jànge jànge tamit comme gos ñoom dañ la dee mën a waal moytu lu ñëw lu lu mel ni walla lu mel nan so loolu yëpp daal ci fajinaam bi daal dafa dafa seet naaw bi mu jógee ci yow nag damay tàllal sama micro soxna si moom it ndax du ñàkk ay kàddu seede yoo xam ne macha allah dina ko ci indi soxna si ñu ngi lay nuy dangay da wàccee loxo yi nga wax ak ñun la ah, moom nag dafa xaw a bëri kersa <laughs> léegi dañu la bëgg a laaj rek sa diggante ak sëriñ bi ak maanaam ni mu xaree ba li nekk ci yow yëpp mu dindi ko tey ba nga mën a am sa doom macha allah ñëw ziar si ko waaye dellu si waat fi tey. ana loo ñu mën a wax ci sëriñ sëriñ bi moom moom mu ngi nooru amam fayam bi yàlla rek mu am fayam waaw mu koy ñaanal moom tam loolu time bi kenn leneen li ñu wax waaye du doom jàppale na ma trop sax waaw moom moo am fayam di gàll di mu ëmb xale bi ba mu am doom moom ma jàppale waaw time bii na moom sant ko ba mu bëri léegi nga ñëw def tàggatoo nii pour bëgg a dem mais dafa mel ne ñaar fukki junni ak ñaar fukki dëmm jinne ñaar fukki jinne ak neuf dëmm ana loolu loon ci mën a loolu de méttoon na trop gisoon naa fu métti de waaye guddi yëpp du ma bu bos yàlla ak kii moo tax bu baax ak yeneen di sant sama kër moom tamit sama ko jàppale na ma trop nekkoon da yeneen góor itam dimba dimbale comme kii nekk yeneen góor itam borom fàtte ne ma bu yàgg waaw maa koy sant di ko gërëm. ana loo mën a wax ci kàddu yi nga xam ne sa soxna yëkkati na ko. Ah, loolu yëpp daal sëriñ bi la parce que ñun euh, dañ doon dañ doon jéem rek parce que parce que euh, demoon nañ ci ay sëriñ yu bari Gàmbi ah, loolu balaa balaa. balaa loolu tamit moom ak moom ak yaayam tamit demoon neen ci ay sëriñ yu bari waaye loolu yëpp gisuñ ci woon dara daal so dañuy dem ci sëriñ affaire yi gën a yokk su ko jinne yi comme sol yengale léegoo léegi seetaan naa fii ay yeneen ay yeneen limit sëriñ bi mooy waxee loolu daal comme jinne yi leen yëngalee suñ meree dañ lay gën a gën a sonnal daal so moom daal loolu moom daloon na foofu waaye bu ñëwee fii moom sant baax a baax ngi ci cëppaandaw gi di def tàggatoo ak sëriñ bi waaw waaw fu mu nekk nii moom ah, ñu ngi tàggatoo daal ñëpp ñëw nañ fi ay laas bu yooyu mo monde la mooy altine ñu gisee mu afta mu seet ñu ñëw su ñëwee comme tey mu génne benn jinne ñëwaat mu génne yeneen yi ba ba demba tamit eh, barki démba jëndoon neen jëndoon neen ticket pour dem waaye dafa am beneen jinne ay eh, yeneen yeneen ñaar la ñu jinne ñu yëngat waaye ñooñu tam cuuraay moo leen génne buñ leen defar la cuuraay bu gars yi génne afta moo woo sëriñ moo ko mën a xaar soo démba tamit gars yi génne ñaar yu waaye tey ci ngoon ñëw neen seet waaye dara yëngoogu daal soo xam naa fu mu nii kay moom naa sant yàlla bu baax jërëjëf muy kàddu yooyu nga xamante ne moo bàyyeeku ci ñi nga xam ne ñoo jógee Gàmbi tubaarkàlla ngeen dégg ni ko jëkkëram waxee borom këram waaye ngeen dégg ni ko sëriñ bi waxee vingt jinne ak neuf dëmm lañ génne ci ñoom tubaar tubaarkàlla ñëw ngi nii toog defe naa ne nettali ci gémmiñu borom la daaxee te dégg ngeen niñ ko waxee kon dañuy daal di jox sëriñ bi rek jëbbal ko kàddu gi tubaarkàlla ndax mu tàggoog ñoom waaw ñoo ngi sant suñu borom bu baax a baax di julli ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay nuyu Matar di am kontaante ak mbégte di ab Ablaye ak soxnaam Fatou kom nu ñu ko waxee ndeysaan jàppale nañ ko bu baax a baax ndeysaan ndax boo xoolee soxna si bu mu ëmbee jinne yi dañu buggoon yàq ëmb bi loolu lañ njëkkoon bëgg a def ma du ci dal ñu dem ba ci digg bi ñu xam ne mënatuñu yàq ëmb bi ñu ne léegi dañuy changer xale bi bu xale bi wachine dañ koy changer ma ne loolu du ci dal ci biir muy mucc ci biir wasin bi ñu bëgg aussi sonal ko ci la ma jëkkëram woo defe naa ci diggante bi génne naa ci ñoom jinne yu bari sax vraiment jàppale naa leen ndax xale bi jinne yi dañ ko naroon changer bu ñu ko changer woon xale bi bu juddoo du mun a def dara day tëdd benn place rek da ngay gis ñenn ñi dañuy jur doom xale bi nekk mbëngal mun du mën a def dara parfois nga gis bopp bi ngande fekk jinne yi ñoo ko changé xale bi du mun a jëriñ boppam du mun a jëriñ famille waaye ma ne loolu du ci dal ma def intervention def ay ñaan ba ñu nekkee Gàmbi mu dem mu dem ci hôpital ba muy waaj a am doom jëkkër ji woo ma ne ma ah ñu ngi hôpital soxna saa ngi si mu ngi fi dafay waaj a motu waaye mbir yi dafa dëgër ma ne ko incha allah ci kàttanu suñu borom dana wasin ci jàmm ak salaam. te jinne yi duñu ko changé ma def suma ñaan yónnee jinne yi ñu dem def intervention defe naa ne yàlla may ko mbosin si jàmm may ko doom bu góor defe naa ne gis ngeen xale bi vraiment ñu xale bi macha allah pattul laggul changé wul dara li ma leen waxoon loolu moo ci ne vraiment ñu tuddee ko Mouhamed macha allah yaayam ma dimbali ko lu bari nag soxna si moom dafa bëri ay jinne ndax foo mu dëkk kër googu dafa bëri ay jinne garab bi mango yi fa la jinne di fréquenté presque. génne naa ci moom vingt jinne macha allah ak neuf dëmm defe ne jëkkëram moo confirmé lool ci kanamu ñëpp te defe naa ne jëkkëram parfois jinne yi dañuy ñëw mooy wax ak jinne yi comme fii ni ngeen di wax ak jinne yi rek xam nga jinne su duggee nit euh, mun nga wax ak moom mën nga jinne bi mën na la wax nga wax ak moom loolu du dara macha allah c'est normal waaye pour nga faj ko nag wala nga génnee ko ah loolu nag da ngay ñëw ci borom xam-xam mel ni Thierno Moule Sow nag mun a def ay ñaanam def ay baatinam nag mën a génnee jinne bi su ko defee nag bi mooy dernier tàggatoo bi nag su ko defee macha allah comme nuñ la ko waxee rek depuis defe naa ngeen fi ñëwoon ah daanaka presque léegi am nañ fi semaine macha allah jàppale naa leen bu baax dimbali naa leen vraiment ba ñu xoolee lépp lépp daal vingt jinne la su ko defee macha allah ñu ñaanal leen rek di leen ñaanal jàmm ak tawféex yàlla sàmm leen aar leen defal leen jàmm noonu la vraiment ñun moom nii la rek képp ku ñu jëflanteel ci kàttan suñu borom dañuy dem ba jeex tàkk li ñu waxante ak yow dañu koy def dañu lay dimbali dem jusqu'à bout jusqu'au bout noonu la ñuy doxee su ko defee rek ñu tàggatoo ak moom macha allah am na ay garab yu mu war yóbbul magam aussi ma joxaale ko magam bi mu ngi bitim réew. jërëjëf mbokk yi. mu nekk mu ngeen dégg kàddu yooyu jóge ci la maréchal le bureau des dëm king of the king king all the king le roi médecine traditionnelle du monde mu mel ne gis ngeen comme noonu rek mu ko waxee noonu lay demee am na ay garab yoo xam ne tubaarkàlla sëriñ bi war na ko ko jox mu yóbbaale ko tubaar tubaarkàlla noonu rek lay demee fii sëriñ bi moom dalay topp ba ba mu sës tubaar tubaarkàlla mooy buy faj moom du bàyyi dara waaw nii rek la koy defee macha allah. ba nga def say témoignage mu doog laa bàyyi nga doog a dem kàll ngeen gis garab yi noonu macha allah yooyu nag kenn dong moo ko am muy alaaj Thierno Moule Sow king of the king le roi médecine traditionnelle di monde ngeen gis garab yi noonu yii defe naa ne day dem international la jëm tubaar kàll ngeen gis noonu ngeen gis noonu ngeen gis boobu pour sangu la kooku vite fait la ba tey pour sangu la muy ñi nga xam ne ñoo jëm bitim réew boobu pour magam bu nekk bitim réew la parce que yi xam ngeen ne duñ ko def ci ay butéel waaye sëriñ bi da koy pakete ci ay mbuus tubaar kàll nii la koy defee mu jëm bitim réew tubaarkàlla ngeen gis ko noonu moom lay bind noonu di ko di def écriture yi nga boobu tamit sangu la suba ak ngoon ngeen koy dégg noonu di ko gis ngi noonu di def écriture yi di ko bind xam ni kooku vite fait la ba tey macha allah waaw nii rek lay demee fii ci clinique daalu laaxi bu alaaj seen mu lay sow waaw ngeen gis comme ni ma leen koy waxee rek ne leen bagage yi fu ne lay dem partout dans le l'Europe partout dans le monde boobu cuuraay volcan joni joni bi la ba tey moom it ba tey mooy génn boobu tamit ba tey pour suuru la waaye am na boo xam ne dañ koy sangoo waaye am na boo xam ne it dañ koy naan waaw tubaarkàlla ngeen gis ko noonu bu ëpp ci bi ñuy naan nag daanaka lu ci ëpp jigéen ñi lañuy ëpp luñ koy utiliser parce que ñoom xam nga seen wàllum biir tubaarkàlla lu leen yàqal dafa yomb waaye sëriñ bi yooyu yëpp da koy détecté macha allah bu amee lu nekk ci sa biir rek tubaarkàlla ci lay daal di gis li nga xamante ne macha allah mooy kii bi kàll ngeen gis ko noonu waaw waaw allah. ngeen gis ko noonu waaw ngeen gis ko noonu léegi ngeen gis garab yoo xam ne sëriñ bi da ci def kot nag boobu moom waaw waaw hmm. waaw biteel boobu nag waaw waaw biteel boobu nag ngeen gis biteel boobu day xaalis bu bari moo koy laal de biteel boobu biteel boobu biteel boobu sept mille moo koy laal waaw waaw ngeen gis ko noonu la maréchal tubaarkàll dama bëgg nag nga zoomel ma sëriñ bi tubaarkàll waaw ndax defe naa ne fii mu génn defe naa ne du kenn ku dul yaay rahmaan ak rahim tubaarkàll ngeen gis ko noonu fi mu génn ci jasneer tubaarkàll ak ñëw bi macha allah waaw moom ndeysaan moom ak soxnaam tubaarkàll dañu bëgg sëriñ bi nag waaw ndax buy wax sax dangay xam ne moom tubaarkàll dafa am cofeel ci sëriñ bi waaye moom it soxna si noonu la amee cofeel ci sëriñ bi macha allah waaw tubaarkàll jërë ngeen jëf loolu lañ leen indiloon fii ci clinique Daaru Laahi bu Alaaji Cerno Moule Sow king of the king king all the king le roi médecine traditionnelle di tubaar tubarkàll di papa yi sëriñ si di bàyyi jinne yi tubarkàll di borom kun fayakoon di borom duwaa jaabi loolu la yàlla dogal tubaar tubarkàll séentu asamaan nag jërul buuxante sama waajaa ngi nii ne fàng ne daaj tubarkàll borom kun fayakoon